nga xam ne yow ne nga ci liggéey ci bu baax a baax a baax. nekk nañ ci nekk nekk nañ ci nekk nañ ci xam nga. ñëpp la xam nga loo mën a gis benn lam du loo mën a gis ci àdduna day am locomotive sax dafa am ci ci kii waaw loo mën a gis day am jiit liggéey bi nga ci liggéey propose gars yi na ci wax dëgg yàlla accompagner la aussi muy yow ak oustaz Assane ak ñoom sëñ Moustapha Diop ak ñëpp rek. Mm-hmm. macha allah seen liggéey rafet na. Mm-hmm. am na solo euh, Serigne Cheikh Niass itam ci investissement yi. Mm-hmm. ak innovation yi lu rafet la yàlla suñu borom gën koo kàttanal. parce que ndamam ñun mooy suñu ndam. dëgg la kon suba incha allah ñu dajawaat. bu suñu neexee yàlla jërëjëf Mohamed. waaw Alaaji Mohamed xanaa bëgg rek. Euh, ci suñu mbokk suñu xarit sunu frère. Alaaji Cheikh bu ndax dafa am lu ñu doon togg man ak moom ci tànt yi. ba yàlla àtte jataay bii am. ma yëg ne kon sunu yéene ngeen mottali ndax dafay wane ne kër gi même bu fekkente ne gisantewuñ wuñ même bu fekkente ne waxtaanuñ xol yee àndandoo ba communication bi ci xol yi lay départ ndax ba may wax ak Cheikh bu pour mu ñëw eh, yëguma eh, yëgoo it ne man wax naa ak moom ba yàlla atte li mu atte mu nekk nit ku baax nag mm. Alaji Kabir seen sunu mag ji fi nekkoon tabaarakallah te nekk États-Unis moo nu boole woon ci kóllëre gu yàgg nee naa ko ñëw naa grand théâtre ay ati ati at ci sa événement yi te doo ko yëg bu ma ñëwee rek damay làqu ca gannaaw toog déglu sama xol bég sama xol féex ma daal di jóg dem xikam bi nga xam ne moom la ko xadija xadija euh, euh, wax ah xikam nag moom ah. dafay dafay woy wu jamono laaj kon jeex ko soxla faw mu tëjee ko kon jeex na xadija waaw man bi tey maa ngi remercier mhm. téléspectateurs yi internet yi ñi nga xamante ne depuis ba salon de recommencé ba léegi macha allah ñu ngi encouragé di apprécier lu ñuy liggéey euh, waaye tamit di remercier ñi nga xamante ni ñooy jàpp bu baax a baax ci liggéey bi comme comme am Khady Diéry Fall waxee euh, Khadija Mbaye euh, Khadouj Makeup vraiment gis nga kanam yi yaa ba ngeen mun ñoo xool moom moo fi jaar di ko remercier bu baax a baax di remercier nga xamante ñooy jàpp tam ci tenue kii di Alassane Ali Samb Couture nga xamante ne chaque jour day jàpp ci combat bi moom dama ko remercier ku bëgg ci tenue yu rafet yi rek da nga koy jéem a joindre numéro am di 77 793 83 69 incha ba suba ñu toog fi ak beneen invité bu am solo bu ko kenn raté suba fii salon d'honneur Euh, dina neex ma bàyyi la wax suba invité bi. invité bi moo di Moustapha Diakhaté moom moo fas yéene ñëw suba nag Moustapha jaxate moom ku ko wax euh, xam ne rek gan gu màgg la ñuy am suba euh, moom itam ni ñu ko amee tey jii noonu lañ koy amee suba te noonu lañ ko fas yéene amee bés bi yàlla kon suba Moustapha Diakhaté lay doon man maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax général xaar leen ma de général pare leen parce que damay ñëw en direct jox leen li nga xam ne moom mooy plateau bi bu ñu paree ci Cheikh Bouba tey di gërëm nag salon de couture Betty Kunta maa ngi koy maa ngi leen di gërëm bu baax salon de couture Béticounta eh, ñawal ma ñaw bu sell bi numéro téléphone bi 77 951 17 06 Cheikh bu ñu jox la kàddu gi nga tàggatoo yëkkati li nga xam ne moom la ñëpp di xaar. tabarakallahu Mamadou di leen sant. Hmm. di sant yàlla di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. gërëm suñuy way jur yàlla na leen yàlla gërëm. Hmm. ñaanal sunu sëriñ Cheikh bu Mohamed Kunta ak njabootam gépp di wax ni lépp lu ñu fi wax mu baax ndimbalu sunu borom la. lu ci bon sunu matadi la di wax la xaamisu xulafa daan wax Omar ibn Abdul Aziz li tax ñu tuddee ko xaamisu xulafa xilaafaam dafa nekk xilaafa gu sell te guddul waaye mu barkeel demoon nañu ba ku génne asaka doo am koo koy jox mm-hmm. ñu bari nag wax nañ ni mahdi moom mooy nekk xaamisu xulafa muy sëtu yoon ci Yàlla Muhammad boobu Cheikh Sidi Muxtaar tudd ca téereem ba ni mooy tëj dawlal islam fa tabarakallahu uh, waaye nag uh, Omar ibn Abdul Aziz surtout Omar ibnul Xattaab la dafa am kaddu yu am solo yu mu doon wax buñ ko mësaan a jiiñ baax danaan yàlla yàlla na nga leen jéggal baax baax yi ñuy wax ci man te boo ma càmbaree rek duma ma mm-hmm. mu ne yàlla waaye nag yàlla bul tas seen yaakaar ci man kon maa ngi ñaanaat ñaan googu di wax allahuma ijalni farxama yazunuun wala tuwaqis nii bi ma yaquluun waxfir li ma la yaalamuun waaye may gërëm waawal fajri gërëm directeur sëriñ Cheikh Niass di ko ñaanal ndax gis nañu liggéey bi liggéey weesuwul dajale mhm. fi ñi sa baay amoon nga dajale waat leen mhm. lool laa ko njëkk a nawee di ko ñaanal yal na yàlla guddal fanam fu mu bëggee liggéey bi àgg fa yàlla na fa àgg di nuyu oustaz Assane mhm. ci taxawaayam yàgg nañu te yàgg naa am taxawaay dëgg mu nekk dans l'ombre rek di liggéey mm-hmm. di nit ku baax di nit ku am taxawaay di la sant ngir li nu seq yëpp yow Momadou mm-hmm. di la ñaanal amiin yaa rabbi di ñaan yàlla na yàlla yokk la amiin yaa rabbi waaye di ñaanal soxna Xadijatu mm-hmm. di kontaan di bég ci yéen di nuyu sëñ Pam Maguette ci taxawaay bi ndax dama koy suivre man histoire daf ma neex moom laa bëgg a mën te lu baree bari bu koy wax di nga xam ni am na fu mu ko teg dëgg la nit dafa war a am lu muy sukkandikoo delluwaay la mhm. li may tëjee mooy soixante-quatorze ans la dund mhm. soixante-quatorze mooy dalil dëgg la ah oustaz del la <laughs> lam 30 yaa 10 lam 30 fa tabarakallahu dalil ah. dalilu lumma kon itte bi mooy nit dafa war a am lu muy wax dafa a am ay adilla fa tabarakallah mhm. di nuyu oustaz Mouhamed euh, suma xarit suma frère oustaz Kabir boole ñu mais muy nit ku ma neex lu tax li muy wax xam na ko te boole na koog yar lu am solo parce que jamono bi lépp lu yar génn rek baaxul te gis naa ko ci moom yaru ba noppi am fulla dafa jafe mhm. dinaa koy wax sama xarit sama mag mhm. sëriñ xaadim loo gaydel borom daam mhm. man ko li ma neex ci yow mooy yaru ba noppi am fulla loolu rek laay roy kon nag ñu ñaan yal na yàlla guddal sa fan di bég di nuyu nag nga baal ma waa AFCBD ñooñ ñooy les amis fidèles de Cheikh Boudiop kooru daaw ba ñun du ma génn fenn maa ngi Ndiassane li ma toog Ndiassane ren mësuma ko fa toog. Mhm. daan naa bougé mais salaire lañ ma wutal. mel ni man fonctionnaire la. loolu mooy bëgg te yàlla tax. dëgg la cellules yëpp nag yi nekk Sénégal ak yi nekk diaspora. Mhm. ci bi maa ngi leen di nuyu. moo tax ci biir sama tonton Mouhamed nee na ma li ma jaaxal ci association bi moo F muy fidélité. ok. dañu fiy dellu ak man. Mm-hmm. muy ñoom seen présidente soxna Oulimata Fofana. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu di nuyu soxna ay Sow. Mm-hmm. ak membre AFCBD yëpp. mais nuyu waa cellule diaspora. soo demee France tey kenn nelawul lu ma wóor la. maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp. di ko teg ci loxo soxna Ndeye Fatou Fofana. ma sœur. fële ca moo. macha allah ci dëkk bu ñox wax soo demee Angoulême di nga fa fekk suma tata Maguette mhm. macha allah fële ca Bordeaux Marseille suma tonton kay Fall mhm. macha allah mënuma lim kasiiroon mhm. waaye nag euh, maa ngi maa ngi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara noonu laa leen ziyaara nuyu ndey astu kayta ma sœur di ko nuyu moom tamit ak magam ñoom soxna Awa ak ña fa nekk ñëpp président group bi soxnaam ma nga fa di euh, soxna Mariama waaye ki nekkoon manager group bi mi ngi Lyon di Souleymane Fall ñëpp ñëpp ñu ngi ko xam nañ ko fa tabarakallahu su ko defee euh, waa Maroc ña nga toog étudiants yi fa nekk oustaz Modou Abdoulaye Ndoye mm-hmm. moom ci moom lay jaar pour nuyu waa jamaatul islamiyatul mutamassikatu bi tariqati al qadriya wa tastadiu bi anwaari xalifati shaabi Mouhamad muy MJKS di mouvement des jeunes cadres du Sénégal mm-hmm. ña nga Maroc kenn nelawul boobu ba tey ñu ngi def signe ndeysaan ànd ak ñun mbir mi ñooñu maa ngi leen di gërëm mm-hmm. soo demee itali maa ngi gërëm ñëpp mm-hmm. tey ku lim di nga jum mais cofeel dafa fort mm-hmm. teg ko rek ci loxo sam pap Boubacar Kunta mu mooy caatu Cheikh Abdourahmane bu ak soxnaam nuyu bàyyi Ndiaye sama xarit di Cheikh soppee Cheikh bu waaye nuyu sama doom tariqa bi li muy yaatu yaatu benn nit laa ci mës a jox wirdu Qadir sama doom la xam na boppam muy ma dem maa ngi koy nuyu te kat mu am pas-pas di liggéey te wallahi mësuñoo gisee allahu akbar jërëjëf. waaw loolu loolu am na leneen lu ci nekk. kon nag maa ngi koy ñaanal maa ngi koy encouragé. Mm-hmm. mook borom këram ak yaayam ak njaboot gépp nuyu soxna Maymuna Ba ma sœur lii ma nekk balaa ma ñëw taxawaay bu rafet la ci am. xale yi euh, lii ci yére la bokk. waa mm-hmm. AFCBD. dëgg euh, sama euh, soxna. di nu mu tuddati madame Kayta. Mm-hmm. di Coro Fall di soxna Abdou Karim Kayta. Mm-hmm. moo ma jox lii ci guddi shop bu gi. daaw dañu ñëw ay ñaw ba ma teg ko ma ni leen damay xool bi ci gën a woyof ñu nuroole ko. Mm-hmm. parce que bu ma solul ñaw kenn mu mer ci retour à la source mm-hmm. ma xool bi ñu bokk ñun ñëpp nuróole ko ma ni boobu rek lay sol tey ngir li ñu ma defal su ko defee ma leen di sant di leen gërëm nuyu soppe yëpp bàyyiwuma kenn bu ma mm-hmm. sañoon damay tudd ñëpp nuyuwaat docteur Yuma Atifal dafa joué ci suma carrière international bi surtout muy lu ma teewee waaw xale yi ñi ngi nii toog bi ñuy dem Côte d'Ivoire yow ak sa group douze personnes d'accord ah logé nourri ak taxawaay ya pour nga nekk professionnel. d'accord di ci daj guddeeg bëccëg. Hmm. dagg yëppam loolu loolu cofeel la. d'accord ñuy ñaan nag yàlla na ko yàlla sàmm. nuyu naa ñëpp ñaanal xalifa bi. Hmm. ñaanal njabootam. ñaanal sëriñ Mame Bou Cheybani di conseil spécial bu xalifa bi. Hmm. di ko ziyaara fa tam ñu ngi mhm. di ko ziyaara waaye nuyu porte parole de la famille muy Cheikh Papa Abdourahmane nuyu njabootu sëriñ bi yëpp Cheikh Ibrahim taawam waaye nuyu sëriñ Mam bu Kunta waaye nuyu seen rakk Cheikh Abdou Qadir Jeylaani ginnaaw ba ma nuyoo ay magam Cheikh Sidi Yaxee mu imam Mouhamed Bekkaay sëriñ Sidi Mam sëriñ Baba Kunta seen rakk yooyu ñëpp maa ngi leen di ziyaara ak njabootu sëriñ waaye Jeylaani maa ngi koy ziyaara <laughs> xam naa ni seen temps <laughs> na jeex na tàkk <laughs> ah. waaye nag li ma bëgg a wax rek mooy kontaan na nañu seede ni bu ma sañoon damay tudd ñëpp yàlla nañu yàlla boole defal jàmm du gudd rek ñu tëjee ko xikam <laughs> avant ngay yëkkate rek ma ma ma ma nuyoo euh, ci beneen plateau bi général ndax mm-hmm. ñoom seen équipe baa ngi taxaw di mm-hmm. euh, général Kayré bu fekkee ne yaa ngi may dégg général maa ngi lay nuyu xool général la muy def rek général maa ngi lay nuyu nga taxaw di defar yi micro <laughs> général toogal général toogal toogal toogal général toogal toogal ci chaise bi ñu mun a jàkkaarloo ak yow ñu waxante voilà général xoolal sa caméra bul ma xool xoolal sa caméra acca général maa ngi lay nuyu bu baax a baax alors général maa ngi lay nuyu bu baax a baax général dégguma la de wala da déggul général maa ngi lay nuyu man aw ma général dégguma général micro général xoolal leen ma ko ma dégg ko parce que dégguma général Euh, bu fekkee ne général micro bi xoolal nañ ma ko ma di ko xam naa ne fi ne yaramam moo tàng moo tax actuellement ñoom dañoo fa yéene yëngal li des ci guddi gi bu cheikh bu paree waaye euh, euh, daanele wéyam ñoom nag ñoom ñooy jël pour enchaîner li des ci guddi gi bu fekkee ne général yemb na itam ñu nuyu ko mu wax ak ñun parce que leer na ma ne am na lu mu lay yóbbante ndax daa sob général ndax pare na. pare waaw grand bi tey. waaw général maa ngi lay dégg léegi. sam papa laa doon vocal. loo doon vocalé sa papa général. bu ko wax bu mu fàttee joxe dépasse bi suba balaa moo xëy. bu kan joxe dépasse bi. bu mu ko fàttee joxe. yenn saa yi dafa maa bàyyi dépasse bi jamono ji <laughs> ah loolu nga doon réglé. waaw loolu laa doon nekk ko eh, suba na eh, ma lebal. gis nga Cheikh Bou boobu ba léegi li mu fi def loo koy wax. Cheikh Bou maa ngi koy gis mu dugg fu am solo. Uh-huh. na ma ne Cheikh bu uh-huh. gis naa ko mu dugg fu am solo démb rek saan maa ngi dem fépp naan tey Cheikh bu mooy ñëw. Uh-huh. ndax tey dugg na sallallahu alayhi wa sallam te wax ni seex bu wax ni ndaanaan la boo xamante ni kenn dootu ko présenté si réew mi. Mhm. waaye daa am benn seen ustaas boobu ngeen invité a côté. dafa am benn. mooy ustaas boobu ngeen invité à côté. waaw waaw daa am ku muy ndural fii de kaay. <laughs> kaay kaay. jo kaay kaay toogal mi ngi nii. ah daa am kuy defanteeg moom. ustaas maa ngi nii ustaas bi xaaral rek yow. waaw baa ma leer mais niroo wax na dëgg dañoo niroo. waaw waaw eh, eh, bul eh. wax bul wax. damay wax ne xoolal xool ngi nii. Eh, gis nga leen. <laughs> Eh, yow yow loolu moo am léegi gis nañ nuyoo bi général. ah général léegi d' accord général. waaw gis nañ nuyoo bi léegi lan ngay jox gars yi ci kanam tuuti loo leen dencal. mooy dama ne ku toogoon sa saal na nga socc ba naaj te xam ne da nga ba ñaq bi toog. waaw. waaw kon léegi léegi ñu ngi ñëw ci plateau bi général. day reetaan ba keroog ñuy xëdd. dañuy la. dañuy ree ba keroog ñuy xëdd. kon jeex na taag kon leer na jeex na. jeex na à tout à l'heure général. jeex na à tout à l'heure demi. <laughs> ñoo ko déggandoo Cheikh bu Aïcha. Eh, ñu yëkkati rek jox ñoom général. général ñu ngi lay nuyu. <laughs> nuyu mboolem technicien yi. am ngeen benn Cheikh Cheikh Tidiane. Mhm, Cheikh Tidiane Diop Ndiaye. Mhm. doomu soxna Umu Taal. ndeysaan wax moom it maamam mooy xaali buuna Sidi Chérif. Mhm. borom Ndiassane it maamam la. ndeysaan maa ngi koy ziara. moom noppi rek te liggéey mais maam Omar Foutiou Taal aussi. El Hadj Omar maamam la. macha allah déggoo li ma la lenn lañ ko xamee noppi na. Ah. liggéey rek lay def soxna leen koy dégg dëgg yàlla. Isaaxa Diagne suma xarit la. mboolem technicien yi maa ngi leen di nuyu. Mhm. yàlla na ngeen am jàmm. acca mujj kon nag ñu tëj rek incha allah di ñaanal sëñ Bouna Imaam. way wii may fàttali ba tey ci honnêteté intellectuelle ni man binduma ko. ndeysaan sëriñ Bouna Imaam moo ko bind. moo ko bind di suma sëriñ mooy imaamu ratib bu ndànk naar. waaye way wi fees dell ak njàngale. acca yow la min dillim ciw këyin mu doon sa njariñ ku yóbbu njariñam topp sil te ma waa ma ni la tey ma génne xikam Sénégal ay xikam li muy firi mooy ay xalaat yu lay jaxate Walfadjri xikmatul rasul dafa ni mooy lu rot kii ci ku gëm nee na ko fekk na jël moo ca gëm di lay gën a am def leen lii sunu way wi li koy tax a jóg moo di jéema wutu sunu ndam bañ di gëm cosaan bu mu tax ñuy nelaw ba dootul dem bu nu gëmee itam sunu maam kaa ñu jàngi ay kayitam waay waay waay déglu leen jéem a roy jëfam ya mu daa jëfandikoo ba xëy wala leen Sénégal doon ni xel demu doon taxa daw ma ni la kon la fañ du fi am déglu leen doon ni tool taxul mën a béy gaañu jéem a wut sunu bul di def lamin ku la tooñ foo ko fekk du fas sa kanam abu ko déedéet loolu baaxul kon mu daa di li ci yow xañ la tuuti ndam ci kawam Oustaz Mouhamad xam nga mer waaye ku ko saxoo dana dem yàlla buur bi tagg ci alxuraan ku ne ku ne lépp xaju fi Cheikh Albekaay xam na dono moo gën a dono njaay yaayu nday coro maami nday faatu ja maami aminta ja lalla mu ndaw min tu bekaay bajjen bi tey turam fatma bekaay yaa càmbay turam astu bekaay maami ibba njaay astu bekaay ni mu njëtoog caatu Cheikh Bekay maam Bekay jëlal sa way waa ngoog sexal Bekay mooy sa baay kon sangoo baayu laalala sa yaay wàcc na danga boole diine jaroo yërmande ma ni su may way Bekay bu yaru na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm jërë ngeen jëf waaw leen góor ah ñu ngi sant ñëpp